والقلم وما يسطرون lu baax bokk ci organisation scientifique moo doon def commentaire boobu tey fi mu daaneel lu am solo la eh, fi ñu ko waajee ak cérémonie moo jigee waaye incha allah ni ñuy waxee yaatal mbindum alquran fu fu mag bindee wala fu nit bindee ak fu mën a nekk ci Sénégal bu ñu fa amee accès incha daa ñu ko jëli gaaral ko gaaral ko mbooloo mi mu nekk lu am solo loo xam ni li nga ciy déggee Sëñ Mbàkke mooy Euh, taarix baax na il faut nga xam taarix wax dañoo ne bi insaanin wala bi aqili man lam yaani taarix fi sadri nit bu xamul histoire am mënut nekk nit il faut nga xam sa histoire waaye li nga siy dégg itam mooy euh, mag ñi liggéey nañ bàyyi li ñu mën koo gis ñun léegi lan lañ pare pour defoo ñu itam yeneen génération yi ñëwaat loolu la moom mooy déggin wi kon ñu ngi sant bu baax suñ maam Cerno ak mbooleem ñi nga xam ñoom la àndal liggéey boobu di ñaan yàlla barke suñ Mbàkke jërëjëf jërëjëf suñ Mbàkke euh, mbokk yi seetaan ngeen vidéo am solo boobu dégg ngeen ci ay turi mag ñu bari ñoo xam ne seenu mbind jaar na fi te seeni jëmm dem na seeni wax it mën naa am dootuñ ko dégg waaye seenu mbind tey mën nañ ñu ko woon loolu nag day dëggal li mbokk mi doon def reportage bi wax ne ay wax day dem waaye bind day des mhm. moo tax euh, loolu ab soññewaat la bu baax a baax boo xam ne dëggal na li ñuy def nii wane ne lu am cosaan ci réew mi la mhm. xëy na dekkal ko ak gën koo soññee gën koo yaatal la waaye mbir la moo xam ne nekkoon na fi te daa bokk ci li nga xam ne dañ ko daan sagoo kenn ku nekk daan sagoo am doom doom ji man alxuraan bind ko indil la ko hmm. nga ànd ak moom yóbbu ko ci sa kilifa mu jébbal ko hmm. léegi nag la àdduna ak yeneen yu baree bari am rek ba yooyu bokk ci tàmbulee réer waaye bañu sax suñu bàggee da ngay gis ni jaafur bi ngay si biir da fàttali bi ngay bind kaamil da nga daa bind kaamil ba mu jekk dem jébbale ko ñu jox la maanaam vingt wala quinze mille mu réy si yow léegi nag ñun la kaay bindu rubu ni mu tuutee ñu jox la juróom benn million loolu da xam ne liggéeyal alxuraan la ak bëgg a desal mbind macha allah loolu leneen la jërëjëf sëriñ bi xam naa kon ñu woo ki nga xam ne mooy sëriñ saaliwu sàll mhm. mu ñëw indil ñu boole lenn ci boole alxuraan yi xam nga nag cosaanul daara moom bind daa amoon mhm. waaye boole yi ci la bokkoon sëñ Mbàkke waaw moom day boroom xam-xam yor daara Touba yor daara xayra jaaga bokk ci itam commission scientifique bi am am liggéey bu muy liggéey bu bu bu am solo Serigne Saliou Sall moom dañ ko wax ni ko nañu ko gaaral rek ni ko mag ñi daa indee bu nappee ñu xool nag lan lañ ci rek Serigne Saliou bismillah bismillahi rahmaani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi ñi ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di masawu ñëpp di balu xaq ñëpp di ñaan ci daraje seexul xaddim suñ daje tey bii yàlla na bu mu doon suñ mujjug daje kon mu mel ni daa wax ne dañuy jéem a feeñal liggéeyam mag ñu baax ña ngir gaa yu baax ya xamle leen te wéy leen dana waral seeni saaba leen su dul ko nag ñiy bind ngir yiraaf na su dul ko nag ñiy tari xam-xam daay na su dul ko nag ñiy yeete gaaya yàndoor dootuñu yeewu abadan ba xëy buur kon mu mel ni jàng ak bind ak yeete ñoo mas a ànd naka jekk ci ay wolof tey nag ñu bëgg leena indil ay tur ca mag ña nga xam cam ña tur ya mag ña daa wooxee léeg-léeg ci yennati arafi alquraan yi ñu di leen njëkkeel lañ daan wax gumaalo gumaalo aw tur la ci xarafi alquraan yi gay naa ko tur ci xarafi alquraan yi mboccoor turla ci xarafi alquraan yi combañ turla ci xarafi alquraan yi réedu turla la ci xarafi alquraan yi wéttéer tur la ci xarafi alquraan yi ndégal tur la tur la ci xarafi alquraan yi xaaf tur la ci xarafi alquraan yi ngaax tur la ci alqur arafi alquraan yi jorngel tur la ci arafi alquraan yi yolaale tur la ci arafi alquraan yi ngeen tur la ci arafi alquraan yi mawni tur la ci arafi alquraan yi jaraan tur la ci arafi alquraan yi gëkk tur la ci arafi alquraan yi laañ tur la ci arafi alquraan yi tongu it tur la ci arafi alquran yi laam debbo tur la ci arafi alquran yi laam góor tur la ci arafi alquran yi léwru tur la ci xeetu maaska yi sawru it tur la ci xeeti maaska yi ñu ngi jéggalu nag bu baax fi ñuy njëkkee mooy gumaalo mooy xal kubéer mag ñi dañ daan wax naan aha gumaalo samaana haula i naayo naayo moom ñeent la ci pulaar haula inaayo lasina yaar njoogulaak laxaraaf man allahu halay naa nga lan haam haula iyaakum saba in haasaa yaar lan bilaak furxaan haa kasaa nga haa kasaa nga nëm li ahaana ni nga wal fajri kon loolu mooy gumaalo ñu ñëw ci mboccoor mboccoor nag day ñaari baat yu jege te wuute mooy wëskuroo mboccoor am na saaki dogi mboccoor am na waskuroo mboccoor lii laan lillaahi laan waskuroo nimatalaayi gën a li waskuroo loo yaar an karbotik saba in mooy waskuroo ji nga xam ne bokkut ci ji ñuy wax laañ laañ mooy deel ju tooy réedu hit combañin am na moon lay wax masaa combañ masaa batan laan minal masaani yi nga hijjiri masaani hatta sa yuroo nga sumbar yooyu mooy combañ combañ moom ñetti ñetti tomba lay am ak benn bëñ mooy combañ réedu mooy saat dañ daan wax naan réedu ndaanaan juróom maa ngi nag fu ñu daan wax ndaanaan rek dañ lay wattuloo baat boobee te xam ne baat booba mën na laa daane réedu ndaanaan juróom sal dan laan su doo dan jigéen sàddi dan birim sulli yan min bay ni sul bee nga taarixi moom lañ daan wax naan réedu ndaanaan ñu ñëw ci wetteer wetteer mooy xaa dem dellu yes xa wetteer juróom waaw mboore laan faa mbu faatu mboore baraan waaw laaya baam kamaata laaya hóot laa yes xara caatum juraat mooy yes xa wéttéer xay ndégal mag ñi dañ daa wax naan jékk ci dégal tey nga ne wét jékkub dégal tey nga ne wét baat bi dafa yomb def lool ay ndégal mu ne yej ma xoon baraan fa ma xaw naa nga lisraay muq ma xoon a jaal mbuqata yi mun njombaan fa la xataamal xaqabataa nga balat ñu ñëw ci baatum ngaax mu ne ngaax sidda jéeri ngaax goo xam ne day sidda ca kaw samaana ngaax sidda jéeri samaana an saalaxaa nga jigéen taxas sunan nóor xusiyéeg wa xasa yépp a xasas mu xasirina fati mu asanatin asri saa xussatin musammil wa wasilaa nga adiyaat jor ngel mooy siin su wow mu ne jor ngelam ndaanaan wa ifama laqu israafanaa laan israafan galaay falaa yusrifaa nga njenge lam yusrifoo furqaan qul yaa ibaadi yàlla si na asrafoo nga sumar ñu ñëw ci ngeen ra ngeen mooy uh, raagoo xam ne dañ koy tomb araab yi di ko wax saa yi fekk ñun nag racine lañ ko daan wax mu ne doom si la ngaari mag ñi nee nañ bokku leenu bindiin manaa si la ngeen yaar kooku yónus la ak jaal fata silaa nga naali mu ne kooka ngeen la baaxoo an na si laa nga tey mu ne laañ gaa fay daan ndaw mad madd si la furqaan mu ne taat gaa fay daan ndaw waxu si laa nga aadiyaat mu ne réedu gaa fay daan ndaw maw ni mooy liif gu rëy liif gu rëy dafa am liifa gëkk am jaraanit am hmm? ah, kon léegi ñu ñëw ci laam góor ak laam jigéen laam góor mooy ilaama laam debbo wala ilaama laam debbo laam jigéen it mooy lu mel ni ilal ardi am laam debbo jigéen songi góor ilal ardi kulluhum ilal lasxaanee nga jaal ilal liimaanee nga xafraan ilal islaamee nga safi ilal libilee nga xaasiya moom mooy laam debbo jigéen ngi góor ilaa ma laam debbo nag wala ilaa maa laam debbo sappo la ilaa maa an salallahu yaar jigéen ak njoogu ilaa maa an xéekum xóot ilaa maa udruftum lën bi ilaa maa xalaxaa nga nax ilaa maa amiloo nga furxaan ilaa maa bay sabayin ilaa maa kuntu mursalaat wasalaamu aleykum wa rahmatullah macha allah macha allah jar na tàccu ah jërëjëf macha allah sëñ Mbàkke eh, sëñ Mbàkke am na solo lool macha allah sëriñ Saaliwu Sàll mm-hmm. Eh, boo gisee ne wax rek xam ne mu ngi dund al fi mu ne ma nga sa ginnaaw xel koom xayra jaaga foofu la daaraam nekk eh, ak Touba mu xarala si nag lool lool lool lool xam naa dañoo mos a tuuti sax waaye li mu moom eh, dama yaakaar ne bis bee xat waaye kon dana gën a yéeme suñ Serigne Mbacke macha allah am na solo lool loolu bokk ci li nga xam ne mook alquran a ànd ci réew mi ci njàngin mi mm-hmm. ndax baat yu nuroo yi ba noppi làmmiñu wolof wax ko yombut mm-hmm. léeg-léeg mu boole yépp di ko waxe nenn te xàmmee ko day jafe maa anta bi ni'mati rabbika bi majnun